tey jii nag ci bis Ramadan nekk ñu daje fii ñëpp xam ne ëpp na fukki at daje yi dama ko daan ak yéen yàlla def nag tey mu daje ci weeru koor ak jamono joo xam ni man damay taataan baaxu askan wi saal bi nag macha allah fees na dell waaye xam naa ne bu dul woon ormal gi ñu warmal dëkk bi ak ndig ak eh, ndigal li ñuy wéyee fu waay mën a woote woon ah, lii fi nekk ñaar fukkam wala téeméer mën na fi nekk ndax kenn ku ne ci ñun fii toog ak njaboot ak njabootam rek fees nañ saal bii waaye nag xam naa ne dugg bu ñu ci duggoo ci lii ñu duggoo buntu la pour que li nga xam ne ni moo naqari sëriñ bi ci dëkk bi mu mas a jeex ndax xam naa ne sëriñ bi bañul politique bu dee politique ba nga xam ne nii moom la yonent bi sallallahu alayhi wa doon def mooy politique boo xam ne nii ud'u ila sabili rabbika bil hikmati sa maw'izatil hasanati wa jaadilhum billatii hiya ahsan wooteel nu mu gën a rafete da nga débattre bu doon joxal ndigal ndigal rek waaye dana ud'u wooteel kon boobu baat boobu mën nañ ko wax ne mooy politique ndax la cay teg mooy yaataluñ bi lëtt yi asanu boobu débat la mooy débat la mooy comme débat bi El Hadj Ndiaye bi ma ko doon wax léegi ñun nag soo nekkee ci xeet ci askan ci hizb nga gis ne lii ngeen nekk mooy dëgg tey allahu subhanahu wa taala wax ñu ko mu ne apalaayat dabaru al quran walaw kaana min indillahi fii xayrun la wajadu fii ixtilaafan kasiran ñun de buñ doon acte woo ci li alxuraan wax ci alxuraan li wax ci société bi kon duñ am wuute gu bari ndax alxuraan dafa wàcc ngir diine waaye wa maa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiina li ëpp solo ci jëfiinu islaam mooy jëfiinu doomu aadama parce que bi sallallahu alayhi wa dafa nekkoon Makka dafa nekkoon Madina di attewoo attewu diine attewu alxuraan te booba ëmb na yahud yeeg ñëpp ci biir te gisoon nañ ci seen bopp kon bu ñu jàpp ne alxuraan lañ ci attewoo mbirum diine rek la waaye mbirum dundu doomu aadama wa aatu kullu si xaqan xaqahu kenn ku dañuy jox la sa àq kon nag ga ni bi si tay bi dama ci commencé ci bisu daara di waxtaan ci nit ñi ci sama ah, programme lépp nag ma teg ko ci diine waaye diine gi ma koy teg catholique bi sax wala ki am beneen diine dana ci gis boppam ndax bu ma ko waxul woon ne ko alxuraan na ko wax dana ci gis boppam ndax li ci jiitu mooy lan li ci jiitu mooy programme bi ñu teg mu am lu ko téye muy juróom ñépp xam nañ ne euh, juróom dafa tombee waral ay gaaf waaye cinq mooy cinquième président cinq mooy cinq ponk julli cinq euh, euh, arkaan yi yi téye lislaam cinq mooy cinq julli yi nga xam ni moom lañuy julli cinq daal liñ ko mën a misaale ci dundu doomu aadama wala euh, misaal dafa bari bu boobaa nag ñu jël lu ñuy wax ànd nawle ànd liggéey kooku mën nañoo jël rek yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila li ta'aarafu inna akramakum inda man yàlla maa leen bind def leen ay xeet def leen ay lépp ngis ngeen xamante xaje defuñu pour man olof laa man nangam laa dañoo war a kenn ku ne yam ci li nga war a yem mais loolu mu ñu def moo tax ñu mën a ànd moo tax Sénégal adopté système boo xam ne nii sama naar bi sama sama sama sama séeréer sama nangam waaye doo ko dégg mu ne sama wolof kon moom dafa jël li mu moom jël li keneen ki xeetoo mu jël ko taf ko ci boppam te xam naa ne njàngaleem alxuraan moom rek la jël beneen bi ci des mu yokk yokk ba yëg ko yokk ba yëg ko mën nañoo jël fastabiqul xayraati aynama takunu yati bikumullahu jamian ku jànge ci daara ku bëgg lu baax kenn waru laa jiitu ci bëgg lu baax kenn waru laa jiitu ci fekk lu baax fu mu am nga jéem ko jëli loolu moo tax ma bëgg lu baax lii nga xam ne nii dafa nekk ñu xam koo waaye fan mooy wutum réew mi waaye bis buñ ko jotee bis gànn ndax waaye fan mooy lan mooy politique biñ jël bëgg koo waaye fan politique boobu mooy fan njiitum réew waaye dañ ko waaye fan trop ba ñu bari bëgguñ cee dugg la tax ñu bëgguñ cee dugg mooy kat mooy jàpp nañ ne waxul lu dëgg wala def lu dëgg moo leen ci dugal yaa ayyuha allazina amanu li ma taquluna maa la tafaluna kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la pare ma ne lan moo ci tegu ci point yi mooy daara ji daara moom xam ngeen ne mooy buntu lépp daara tey dafa am nu mu sotti ko te ñoom xamuñ ko bu njëkk dañoo jëloon daara ji d'accord nañ ne balaa place yarukaay la d'accord nañ ne place jàngukaay la waaye jëriñ ko woon ne muy place bu nit mën a jógee soppiku am fa xam ne ni ëllëg mën na jëriñ société bi yaakaar naa loolu dañ na waaye mbir lum dañ dañ dañ te ñi ko bokk dëggewuñ ko kullu hisbin maa ladayhim farihun kenn ku ne li nga moom yaa ko bëggee fëgg sa dënn ndax say Seydina Ali daf ne isaa jaanal isa du fi dan amru jaanal man buñ bëggee suul jëf fëgg sa dënn ne ñun la lu mën a lu war a a dagan la moo tax man tamit ma fëgg si dënn ne ñun ñoo fi man ñoo leen man te loolu Serigne Touba waxoon na ko Serigne Sidi El Hadj Malick waxoon na ko Baye Niass na ko ñëpp waxoon nañ ko ne daara yi nañ fexe ba bokk ci mbir mi ndax sëriñ bi bi mu nekkee fii dafa jël wàllam ci la nga xam ne nii moom lañ doon doxal réew mi ndax tàggat na aw ah, njabootam ba waar ba ñee ngi leen a soppi danga ko wax keroog ma ne maa ngi doog a xam lu tax tey ku jaar ci tubaab bi neex a soppi ndax dañ koo jéem a dafa complexe ba noppi mooy lan dañ na ko fii nga nekk di jàng jàngam tubaab mi boo ci waxee baatu wolof dañ lay takkal ab symbole boo xam ne nii mooy yow dangaa torox la fekk nga yow nga nekk ci sam réew di jàng-jàng tubaab waxte baatu wolof rek yow loolu ñu la takkal yaakaar naa ñi jaar ci tubaab bi xam nañ ko ma ne lan moo gën a ñaaw loolu yow nga fekk ma sama réew jàngalooma sama làkk jàngalooma sama cosaan nga jël ne man moo waxee sama cosaan wala sama nangam ci biir fi may jànge man damaa trop looloo leen di topp waaye ñun booba ñun ñu jàngal ñu bañ a jëfandikoo benn baatu tubaab gëm suñu bopp ndax xam ngeen ne ñun sëriñ yi ñu doon jàngal yépp ba ci sëriñ Saliou bi nga xam ne ni moo gën a mën a jàngale daawul nangu kenn wax baatu tubaab ci loolu te ba sëriñ bi di wax ne bañ tubaab jar na jaamu yàlla ba ñu làkk bi jikko jëla bañ te xam ngeen ne jikko bu lay wax ne boo waxee saw làkk ci fii ma takkal la loo xam ne ni yow danga ci toro dara jaru kon nag daara jooju ñu doon jànge nañ ko gën a fonk waaye pour ñu fonk ko nag nañ fexe ba daara ji feeñ ci lii ñu bañ xam ne waa daara tàmbale nañ jël nañ ko bañ déparé wala jë wala taxaw nañ ci taxawaay boo xam ne nii wóor nañu ne keneen dana ko tante fii ay at pour jël ko ndax bu bu réussir nag jàpp leen ne fekk téeméeri at jël na ko réussir ndax sañ seet Tijaan al Maktoum ak sëñ Cheikh Gaynde Fatma tànte woon nañ ko waaye boobaag léegi am na juróom fukki at kon nag loolu rek mooy iqra rek ak jël xasida sëñ bi ci tasawud sixaar la ca nekk rek ku ko doon jàngal xale ci primaire rek boo paree doo am xale buy wax lu dul noonu doo am xale buy wax lu dul dëgg doo am xale boo xam ne day wege di mag wala muy bañ a dégg ndigal beneen bi mooy tool bi tool bi moo xam ne ne moom daaraa ànd ñun dañ lay tekki daara jàng dañ naan jàng fajar ba tari bu xëy suba ñu dem ko tool ba lañ jàngee liggéey ci lañ jàngee lu metti ci lañ jàngee lépp ndax dem tool sax bañ ko daan def fañ daan def tool man na 3 kilomètres mais daawuñ sol daal ndax amuñ ko woon luñ daan def mooy boo dangay daw ba ci kër gi nga taxaw mu sedd du say tànk sedd nga dawaat ba ci kër ga léegi alhamdulilah xale yi bu ñuy dem daara sax fañ nekkoon oto moo leen di jël ci daara yi yóbbu leen ba ñu bay wàññi ko waat kon kat mooy loolu nag mooy a ah, loolu buñ ko jëlee rek buñ ko jëlee rek mooy amalu fa sayara laa amalakum wa rasuluhu wal muminuuna beneen bi ci des mooy penc bi penc bi nag xam ngeen ne wa shaawirum fil amri fa izaa azamta fa tawakkal ala allah inna allaha yuhibbul mutawakkilina sadaqallahu al-azim maa ngi leen di gërëm leen sant di ñaan yàlla élection yii ñu jëm daara feeñ am ci di ñaan yàlla tamit ñu man fi dajewaat am ay daje yu baree bari démb dégg ngeen programme bi nga xam ne nii moom laa wax ci daara ne moom laay wéyal te yéena ko seede te man damaa bëgg lu ma wax ma def ko ndax ëllëg li ma ciy gën a seet mooy allahu subhanahu te xam ne ëllëg danañ ma ko laaj kullukum raain wa kullukum masulan an raayati yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen